ñu ngi noonu di jubilé ñu ngi noonu di jubilé gis naa buñ fi jógee fii Azalai euh, Hotel buñ jógee Dakar gannaaw bañ defee gis ñu ngi jubilé ba léegi gaa yaa ngi jubilé ah, gaa ngi jubilé ba léegi gaa ngi jubilé gis naa dégg ngeen ñi noonu di jubilé du jubilé ah, ah caravane bi nak ah, warna def ah, Médina warna de def medina et environ après j'ai la ñu bëgg a ni ko Ousmane Sonko caravane de la coalition Diomaye Président quitte enfin Dakar quitte enfin la capitale après. Euh, cinq jours de campagne de caravane populaire après Cité Keur Liberté 6 euh, Parcelles Akapes, après pékin et Kotaf après pékin Guinaw Sud après Kermassar, après Guédiawaye après Lidi Rufuscu, euh, Rufisque barnier lii di Sébikotane lii di Sangalkam ak Diamniadio enfin yéen euh, li nga xam te ne yéen a dëkkee Ziguinchor yéen a dëkkee Fatick yéen a dëkkee Kaolack yéen a ngi xaarandi lii di la caravane ñoom ñoo ngi ñëw seen leader Ousmane Sonko annoncé na euh, tey jii sànq si conférence de bi di ngeen ko ci ay kàddoom rek euh, caravane bi dafa bëgg yeewoo fële ca Ziguinchor kon donc ñi nga xamante ne ni ñu ngi dëkkee Ziguinchor di ay soppe Ousmane son di di ay alliés yéen a a ngi ay gan yu am solo yu am doole dégg ngeen gis na ba léegi gars yaa ngi noonu di way yuuxu kon donc li nga xamante la coalition mai Président la coalition de Mimi Touré de capitaine Touré de Abdourahmane Diouf ah de docteur Babacar Diop qui a récemment euh, rallier la coalition nous avec l'équipe avec toute l'équipe nous hein. ngi avec Dugu, Afidi, kon euh, Bignona kon leader accent euh, Ousmane Sonko et aussi ses alliés kon donc mbokk Dakar Dakar Actu internet nous ngi di depuis pratiquement nous démarré caravane populaire yi bañ campagne bi ca cérémonie de lancement ba yéen a ngi ànd ak ñun vous êtes des milliers ah des milliers à nous direct à chaque fois rek bu ñu taalee suñu live yéné and ak ñun à travers nos plateformes hein mbégte bu rëy la ñuy ànd ak yéen di euh, leen jaajëfal bu baaxa baax wa diaspora bi aussi wa Paris hein ñi nga xam te ñi ngi Arabie Saoudite euh, ki di Mariétou Mariétou Ndiaye ah, Babacar mbay depuis Japon ñu ngi koy jaajëfal Suisse wa Espagne kulim lim wa waa Allemagne aussi ñu leen di jaajëfal bu baaxa baax aussi en en Centrafrique Gabon muy Cameroun muy Argentine aussi en Amérique du Sud de Chine à Suède wa Nouvelle-Zélande États-Unis ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax gis seen ñu ngi noonu taxaw ba tey gis seen gars yi sonn daanaka daanaka malgré tàngoor gi malgré koor gi ñoom ñu ngi nii di jubilé ba tey gis ngeen ba léegi ñu ngi jubilé ñu ngi xaarandi Ousmane Sonko génn gi seen caravane baa ngi taxaw ci buntu hôtel Azalaï war a dem yeewoo fële Ziguinchor war a jaar d'abord euh, fii quelques quartiers euh, Médina fii la ñuy fas yéene jaar ngir jubal fële sa Ziguinchor wara yewo fofu foofu caravane bi nak wara a sillonné Ziguinchor aussi wara aussi def danaka campagne bi ni ngeen ko xamé c'est exceptionnel danaka 21 jours la woon waaye finalement c'est moins de 15 jours danaka lu des ci caravane coalition Diomaye bëreetul fan yu néew la daanaka seen programme jeudi lañu wara war a Dakar pour def meeting de clôture le euh, 23 vendredi 22 euh, hein, samedi 23 ñu le dimanche ñu voté kon donc danaka pratiquement c'est moins de six jours jàpp ni tay journée bi euh, journée bi euh, l'idée di euh, caravane amul kon donc conférence de presse moi, am kon samedi lañuy tambalé wat li di la caravane populaire en ñu defaale un peu aussi eggali les communes de Dakar comme que commencé à def les 19 neuf communes waye gis ngeen desoon Grand Dakar Médina Desson euh, Wakam Ngor peut-être ils vont faire le tour ou bien hein, donc ñuy ànd ak ñoom lu ñu annoncé Medina la ñu annoncé après rallye Ziguinchor quand euh, donc beaucoup de caractères euh, gis ngeen mi ngi nous ah hein, li nga xamante ne mooy la conférence de presse da ngeen kàddu yi ci jóg da ngeen aussi lii di li nga xamante ne Bassirou fait le candidat hein, de de la coalition Diomaye président conférence mu par rapport euh, à ces interventions la médiation bi mu durant les événements de mars 2021 après euh, juin 2023 avons initié woon na na Ousmane Sonko moom Bassirou Diomaye Faye ci conférence de presse nee na maintes fois initiative ngir dem wax pouvoir bi ñu xool euh, terrain tant waaye finalement euh, message am mujjut a jot moom li nga xam te ne Bassirou Diomaye Faye mu ngi def fii ay révélation Ousmane Sonko dégg ngeen tamit ci kaddoom mu ne ñi nga xam ne ñu ngi wax ne Bassirou Diomaye Faye moo gën a métti si euh, ci régime bi dañu xamul la rek Bassirou Diomaye Faye ku sedd la te aussi moom Bassirou Diomaye Faye dégg ngeen ko ci ay kàddoom mi ngi àdduna moom nitu dialogue la nitu concertation la maanaam ki nga xam ne dafay bëgg a waxtaan dafay bëgg a booloo ku bëgg a dialogue ko bëgg nit ñi toog waxtaan ci autour d'un consensus autour de consensus boo xam ne ne ku nekk rek dañ ci am li nga xam ne mooy sa respect say droit ah, kon donc mu doon li nga xam ne ci tënk rek ah, jot ngeen ko dégg en direct à travers notre live fii ci Dakaractu kon donc euh, mi ngi noonu euh, mbokk yi gis ngeen gars yi ñu ngi fële di jubilé ba léegi. ñu ngi fole de jubilé ba léegi Alain boo leen mënee zoomé ah ñu ngi noonu di jubilé foofu noonu ba tey pour wane ne gis te ni les gens li nga xam te mooy sympathisants yi mooy militants yi daanaka ñoom euh, coono yëguñu ko daanaka presque depuis euh, démb ba démb ci heure bi daanaka pratiquement la ñu annoncé libération Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye waaye ñoom li gis seen lu ñu constaté lii di euh, quartier Dakar yi lii di gox-goxaan daanaka pratiquement fépp xumboon fépp bari woon nit mbooloo bu takko takko ku nekk rek ni nga mën a yuuxoo ni nga mën a wane sa mbégte rek gannaaw ba nga déggee ni usmaan Sonko a génn na Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye génn nañ ah, mbégte wu rek gis ngeen ni nga noonu di woy ba léegi génn Luciana ñoom ñoo nekk fale di way dégg ngeen ñu ngi noonu di way da ngeen ñu ngi way